cet daf laa sonal lool wala bët wala def-def nga gis ne loo dugg du sotti loo jéem du ant yaa ngi nekk ci ay jafe-jafe moo xam jafe-jafe diggante la moo xam jafe-jafe liggéey la moo xam jafe yaram la maa ngi lay diggal nga def lii incha allah muy secret boo xam ne secret bu naturel la muy yëfu mag ñi ndaxte ñaareel dama leen faral di wax toujours ne alquran lu gaaw la lu baax la waaye itam yàlla dafa séddale boo xoolee xam-xam dafa yaatu. moo tax tey ñu ñëw di leen jox secret su doomital yow mi nga xam ne am nga jafe-jafe yooyu noonu li ma cité lii yëpp incha allahu rabi dafa lii da nga am jàmm da nga am tawféex boo koy tàmm di ko def chaque semaine incha allahu yàlla dana la dimbale maanaam da ut euh, benn kuddu doomital ngay ut rek nga ut ndoxu géej boo amul ndoxu géej nga ut ndox moo xam ne da nga ciy def xorom su ko defee nga jël benn comp rek nga def si incha allahu rabi bu la yàlla dimbalee itam ba nga mën see def juróom-ñaari puso baax na nga sangoo ko ñetti fan soo paree nga jël puso yi gas ko suul ko jeex na lii boo koy tàmm di ko def chaque weer chaque weer nga di ko def gisuma lu ko ëpp doole jarul dem fu ne di fay sa xaalis boo góor góorgóorloo lii nga def ko rek yàlla dana la si defal tawféex dana la dimbali si bépp gàllankooru yaram cat bët def-def liggéey yéene bu bon lu mu mënti doon incha allah. ñi nga xam ne nag ñaareel dañuy bëgg di def istixaara mooy ngay def istixaara sa mbiru bopp wala si wàllu diggante wala yu demee noonu daal incha allah rabbi bi nga ñu yónnee message si numéro bi di affiché si écran bi incha allah incha allah defal lañ ko incha allah kon nag mbir maa ngi noonu ngeen partagé ko dimbali ñi nga xam ne ñaareel dañuy bëgg di def yi waaye lu si gën a bëri duñu am occasion pour mën ko def kon tey lii laa ne indi la ñu ngi yëfi ba suba jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu.